nos interventions et dans nos communications man mii su ma sañoon. Hmm. su ma man laa wax. mu rejoindre ko mu rejoindre leen. loolu sama bëgg-bëgg la woon sama kii la woon. c'est clair mais est-ce moom ci tey mu nekk leader politique am ñu topp si ginnaawam mais dama naan bu deful loolu dama naan ko dëdd nangam ak nangam. du ma hmm. ko ko wax hmm. c'est son c'est sa liberté mais man su ma yéene loolu la woon te wax naa ko si ay plateau yu bëri ba même en l'occurrence Sen TV. alors loo xam nag ca gël guyam la quoi. du man maa ko ko si orienté quoi. non pas Bougane mais on parle on parlait de manière générale par rapport aujourd'hui à la sortie euh, euh, de ces de ces de ces de ces nouvelles figures politiques wala kon sax ñu nekkoon seenu lël daal dafay tooga exactement alors mi ne nekk lu am solo alors dañuy daal dit que si Bougane exactement c'est qui euh, n'a xam que Modi di Mansour Mon thème de faire une benn sortie euh, Mansour Faye mu daal di àddu jëmale si euh, bataille ñu Ousmane Sonko foofu si diwaanu Saint-Louis mu daal ni euh, la priorité c'est un retour à la tête du Sénégal de Macky Sall qui a quitté le 2 avril dernier au terme de deux mandats ñom nee nak li len soxal jamono ji mu wat ki nga xamné que mudi Macky Sall si bop li nga xamné que mudi ngor nguur gi ginnaaw bu mu daal amee ñaari mandat 2012 japp 2019 2019 japp 2024 euh, le maire de Saint-Louis waaye itam nekkoon ministre bu ndeg wàllu infrastructure euh, mi ngi promet daal di def euh, Kim kàttanam liguey pour ki nga xam nekk moo Macky Sall dal di war a ñëwaat ci bopp réew mi alors je suis de l'Alliance pour la République je suis derrière Macky Sall et il demeurerait jusqu'au jusqu'à mon dernier souffle jure-t-il moom ki nga xam nekk moo di Faye néna na mi ngi fa nga xam ne itam mooy APR et que fallait tok ba bés bi muy génn àddina Mansour ji euh, il est convaincu que ni euh, Mom Macky Sall euh, dina ñëwaat lu yàgg du et que mooy nous liggéey ñoom tous les jours ni Macky Sall daal di li que moo président car Macky Sall moom le seul chef de l'état bi nga xam tam ba mi ngi am la confiance des sénégalais alors c'est une nga qui di gisee cette sortie justement de Mansour Fay, allant dans sens ñëw na si nu mu gën a yaatoo si mel jàpp nañ ñoom jamono ji seenu liggéey mooy def seen pour ki n'a xam que moo di Macky Sall dellu siwaat à la tête du pays. man de Mansour Faye sax man damaa commencé sonn ci ay analyse am <laughs> di ko analyser. waaw Mansour Mansour daal li ma la mën a waxal daal. su fekkee dañoo am volonté pour indiwaat président Macky Sall la ma koy xamal mooy bu yow mu wàññi sonn gis nga Sénégalais yi ku ñu xas ba wàccu wàccu nañ la wan lañ la ginnaaw gëw ma ni dans l'histoire de notre pays là nit dina fi nekk président pare ñëwaat di ko doonaat gëw ma ko. Hmm. gëw ko loolu gëw mais l'exception, exception nek assister assisté si Macky Sall. vu que mais mais euh, Macky Sall xam nga li ko fi il est encore jeune. xam nga lu ko fi jëlé premier tour 54 mom ak candidat premier tour un président de la république un opposant renversé avec 54 pour ngeen espérer waat ni mën na ñëwaat. 54 des sénégalais. premier tour waxuma deuxième tour de premier tour lañ la balewee ngeen espérer waat koku mën na ñëwaat jëlaat jëlaat réew mi wante deug fallu dañu waxante dëgg mais est ce que ñëwaatam du euh, dépendre. bu ko neexee euh, mu ñëwaat est ce que ñëwaatam du dépendre si bilan bi nga xam ni itam Diomaye dina ko réaliser. mais euh, ñeneen lañ fi xanaa kon ñeneen dañ fee newut comparé ñu xool. ñaari bilan yi xool mais xanaa ñeneen newuñu fi fàllu. Abdoulaye Wade mii Abdoulaye Wade. Hmm. amuloon bilan amuloon bilan. Abdoulaye bi muy jógee fii ñëpp ñu bëree bëri woon dañ ne lim liggéey si réew mi kenn dootu ko fi liggéey est ce que dafa tax ñu wóoluwaat ko. ñu joxaat ko réew mi wala ñu jox ko doomam man gëm naa ni sénégalais ku ñu xës ba randal xoolal keneen la ñuy wër nag waaye dootul yow te affaire bi ma wax affaire day tas affaire y a day tas xaaral ba Amadou Ba muy jugaay commencé jug ba. imposé wu euh, mais Serigne tey leen gën a ànd nag. ñan waa APR. kan a ànd. gis na Mansour Faye nee na euh, je resterai à APR jusqu'à mon gis na aussi Abdou mbaw aussi révélation yi muy def. ñoom yor Dia euh, et tant d'autres et tant d'autres ñoom Abdou Mbow ñi xeex ñi doon xeex Amadou Ba. ha depuis day wa amdo vu que dem na kay lolou est-ce que jàppoo. dama ne la Amadou Ba dina jël ñu bari bir APR yu balé lan lolou kay moy li wër te mu koy liggéey parti bobu mom yow nga faté ko. damaa la être ay yénam ak ki xalaatam ñëwaat Sénégal dama ne la parti bobu sax la la wax man gëm na ni sax di nga koy dégg ta tas nañ ko. maki ay yénam xalaatam ñëwaat Sénégal du ñu itam ci la. Ah, bokk ah mën na palu amna ci si trois mais ci man ci côté nguur la lay wax. gëw ma ni ba ilaa yow mi diin Sénégal dina wàccee nit indiwaat ko gëw ma ko. Hmm. wàccee nit indiwaat ko nga wane say limite wane di nga li nga mën ak fi nga tëlee. xanaa ñu bees dañ fee newut te booba nag ñaan nañ yàlla nag ay nouvelle homme ay nouvelle nouvelle génération ah nouvelle génération bu gën a am xam-xam gën a gën a gën a am vision nag taxaw fi mais ñaan ñu yàlla di dellu ginnaaw mel ni ñun dafa am loo xam ne dafa ñu manqué quand

ñu jàpp ni peut-être yoon dafa yéex Ousmane Diagne. Hmm? yoon ak wàllu yoonal dañoo yéex si li na xam ne moo di la réduction des comptes et tant d'autres et tant d'autres. loolu moom wax naa ko bu yàgg. ñoo leen may fu ñu waxee. waaw am na loo xam ne doo ko may doo ko may surtout nouvelle opposition doo leen ko may. am xaalis. waaw loolu la kii wax euh, Waly Bodian juuf hmm. waaw man moom bu doon man la moom am na ñoo xamante ni ci administration bi. décret moo leen fa teg décret politique. fa xas naa leen bu yàgg du ma xaar. alors nous daal di wéyal euh, ba je rappelle que c'est l'émission nga xam comme moo le point de l'actu jàppale ni

Euh, par euh, le lieutenant Alun Diop exactement le commandant aussi pour légion euh, lieutenant colonel Ibrahim Ndiaye John Postom, qui na ki avec John et d'autres et d'autres nomination yi n'a un ni amna n'a général Moussa Fall un gendarmerie nationale y a de cela quelques mois alors force de nous diriger aussi commandant bu légion bu sud dikk na nga xam nekk mu di le